waaye Ousmane Sonko mii ma gis. waaw damaa gis ñuul ñuul ci ba si ay mbiram. beneen décision Lamine laaj ma lan la lu doon buy am doy waar. ci réew mi ci homme politique ay waay décision bu génnee. waaw waxoon naa jooyee ci parti ba. waaw décision boobu. waaw kii jooy ci opposition. opposition dama ko gis. Sénégal dana yënguwaat tuuti. Sénégal dina yënguwaat tuuti. Hmm. am décision buy am. décision beneen. Hmm. ci état ci maanaam nguur la jógee. ci nguur ba léegi. ah boo yeggee yàlla da nga gis tuuti mais lay yëngu rek tuuti. Hmm. yëngu bu am doole lay doon. ah gis naa ci politique buy yëngatuwaat. politique bi dina yëngatu. Ah, allah Lamine ci ci tabaski bi. période bu jeexee. juste waaw bu jeexee politique na yënguwaat la la lan ma stop. homme politique bu ñuy tëj ci kaso. homme politique bu ñuy tëj. waaye nag xam nga ni fa ngay tàggatoo kon. foofu laa mën a yem wasalaam. la ilaha illallah. oh dana nag nga xamante moom moo nekk ci digg bi. day dagg. oh day dagg. gis naa day dagg te bu daggee dana am benn parti boo xam ne du ko arrangé te eh, ñooñoom yëpp danañ danañ toog jooy ñi ñi am leen métti lool parce que mbir ma fa muy féetee maanaam victoire fa muy mujjee. waaw koy gagné. waaw non ñeneen leen neex parce que nañ ko xañ lépp. ay waay Lamine métti na te ay waay Sénégal yi ñu bari nañ toog di jooy affaire bi na métti lool beneen bu gën a doy waar nag mooy buy ñëw di am nag mooy ah Lamine bii mooy dama gis benn politicien bu mag bu ñuy tëj bu ñuy tëj ràpp ci kaso bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu laa ilaha illa politicien bu mag bu ñuy tëj rap ci kaso bi wala sëñ as daanelee. wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu. man nag li may. Euh, comme information baa ngi waaj wadd wadd ni ngeen ñëpp ngeen déggandoo ko jàpp nañ ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. léegi nag fi may wax ak yéen nii kii di Ousmane Sonko placé nañ ko en garde à vue maanaam téye nañ ko jàpp nañ ko placé ko en garde à vue mi ngi ciy loxo yoon du ñibbi këram. Gatão.